bismillah ikfini adar ya allah sabi baqa abin bifika ya allah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokk julli yi rawatina mbokk taalibe ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam tey jiital ci nuyoo bi saaxib alfadila alcheikh mohammadin muntaqa xalifatul am di taifatil muridiya di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool te ko di wàcc di nuyu jëwrini kër cheikh mohamadul fadal cheikh baraka di ko ñaanal moom tamit suñu boroom yàggal ko fi loolu te wéral ko di wàcc di nuyu seenu taaw seen doom cheikh mohamadul mustapha ibnu cheikh mohamadul amin di wax ci turam ak ci ndigalam. loolu de mën nañ cee wax tuuti rek ndax am na luñ ci fekk te dund nañ ko ak sëriñ bi tamit ndax nekkoon nañ ci wetam te jege woon nañ ko yàlla dogoon na bokkoon nañ ci sëtam yi nga xam ne jege woon nañ ko lool te am na luñ mën a seere ci moom. président bi fi nekkoon muy maître Abdoulaye Wade yàlla ko yàlla wéral te sàmm ko te àggale yéen a jore ji mu def te defal ko sëñ Tuubaa moo toog bis woo Cheikh Mahamadul Amin fekk ne doon nañ ko jot bu yàgg jamono yi Cheikh Abdoul Ahad ba ci Serigne Abdoul Khadir ba waaye yàlla mu ngi ko dogalee ci Cheikh Mahamadul Amin Abdoulaye Wade jël terrain bi mu 60 hectares jox ko Serigne Touba mu nekk laa xamante ni murid yëpp ku ci war a delloo njukkal loolu mun fekkee naa ko Cheikh Mahamadul Amin yable woote mun Muntaxa mii fi ne moom la defoon jëwriñ ci jamono jooju ba xoolee ci image yi sax danga gis Cheikh taxaa nekk ci wetu Cheikh Amadou Lamine ñu wësat sëñ yëpp ñi ko moom la mu waxoon rek bi ñu doo ko toog ñi ko moomoon dem nañ ñu ko bokk fi des wësat sëñ Tuubaa yi mu bokkal sëñ Tuubaa yëpp ñu dem Ndakaaru teg xeer bi loolu di histoire bu rëy ñépp di ko fàttaliku bañ tegee xeer bi mu woo yu Faye ba mu ñëw xaalis ba keroog kër sama kër waajur Cheikh Amadou Moussa mi nga xam ne mooy ab taawam fa lañ ko doon wàññi cent millions la njëkk a joxe ci tàng-tàng bi na mbàkk yu ma tàmbalee lii daan na nag yow li ma la ci digal kuy dem na la ci kuy dem na la ci fekk kuy dëkk na la ci bàyyi bu ci kenn man daal wax loolu mbàkk yu mbàkk yu fay tamit lii mu yore mooy représentant xalifa Sall Cheikh Amadou Lamine moo ko def kon moom am na lu mu gisoon ci moom te wax dëgg yàlla tamit wa ma shahidna illa bi ma alimna duñ waxal mukk nit ngir bëgg lu ko neex waaye ku dem masaalik danga xam ne taalibe sëñ Tuubaa yi jàmbaar lañ lool waaye nag Mbàkke Fay nag faaw ñu beral ko loxo ndax liggéey bi ñu ko jox wane na ci pas-pas wane na ci yéene te def na ci qualité tamit loolu dong laa ci seede loolu daal mën naa kaa seedeel ndax nit ñi moom dañu dof waaye ku dem masaalik da nga xam ne Mbàkke sonn na ci jumaa ji te lépp mu ngi ko ànd ak taalibe sëñ Tuubaa ndax la Alaaji Baara waxoon loo fa gis taalibe bu toon ñoom dara du am moom wax jooju dégg na ko waaw kon nag président Abdoulaye Wade mu ko yàlla jaar la ci moom mu jaar Cheikh Mahamadou Lamine ñu ngi koy sant bu baax ñun njabootu Cheikh Mahamadou Lamine rawatina njabootu suñ Tuubaa gi yëpp ba Cheikh Mahamadou Lamine noppee tamit ñëpp gis nañ suñu jàmbaar ja Cheikh Sidil Mokhtar jëf juree jëm ci def continuer liggéey bi yëkkati ay milliards def ci loolu tamit moom tamit faaw ñu beral ko ak cant ndax ginnaaw bu yàlla jàllee ba jaar la ko ci président Abdoulaye Wade jaar ci alaaji Baara ba Aliou bi ak si fooy moom tamit am na ci cër bu rëy kon nag yàlla ko yàlla fay moo magam du tedd ca Cheikh Amadou Lamine ndax euh, Serigne Baara ak Cheikh Amadou amoon nañu ay alaaka yu dëgër ndax ñoom seen diggante diggante yu amoon solo la ndax Cheikh Amadou Lamine Serigne Baara lañ ko tuddee mu wuutu Serigne Falilou dem ba nekk Serigne Touba bi sëti sëñ bi si doomi Serigne Touba jeexee. mooy sët bi njëkk wutu cheikhul xadim da suñ tubaa doon ñaan rek bayit woowu mucc njëkk tàbbi zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa tajahir Cheikh Sidi Mokhtar ñëw tamit tàmbali sof fa Cheikh Mamadou Lamine yemoon ndax liggéey suñ tubaa continué la liggéey fii tamit liggéey bu rëy loolu faaw tamit ñu seedal ko lu Cheikh Mouhamadou lemin liggéey ci biir tubaa rawatina penc sëriñ tubaa yi ak ci dëkk bi ak ci taalibe yi Cheikh Sidi Mokhtar jëf na ko ci jumaay tubaa jëf na ko ci jumaay Ndakaaru sëriñ bi fi nekk mu Cheikh Amadul Muntaqa eggale yéenam tamit yàlla dogale ibbi gi ci moom kon naka Cheikh Amadul Lamine tànne woon mu doon jëwriñ Cheikh lu Mokhtar ñëw continuer loolu mu nekk jëwriñ kon moom tamit am na ci ndam lu rëy ñu ngi ñaan yàlla bàyyi ko fi te wéral ko te sàmm ko di ñaanal seen jëwriñ ji ñuy yónni di ko digal mu nekk ndaw lu nangu mu Cheikh Mamadul Basiir ibnu Cheikh Abdul Qadir suñ borom bàyyi ko fi lool te ndax moom lii nga xam ne yor na ko tey Cheikh Mouhamadul Amine moo ko woo bu mu ñëw mu ne ko yaa ma doy suñ tubaa ma la tànn loo te tànn gi nga suñ tubaa tànnoon moom ñëpp gis nañ ba Bachir li muy daj du sonn du tàyyi ngir liggéeyal maamam di Cheikhul Khadim kon nag naka suñ baara wóolu woon Cheikh Sidil Muxtaar wóolu ko Cheikh moom Muntaxaa wóolu ko ñu ngi koy ñaanal ci barke Cheikh Mouhamadul Fadal mais xam ne muy suñ buntu Serigne tubaa suñ borom bàyyi ko ak sagoom ba yéene jum am liggéeyal ko Serigne Touba suñ borom jàppale ko te mu ànd ak wér di daaneel rek ci suñu jàmbaar ji Cheikh Mamadou Amin moom de ku laabiroon la woyofoon la ku amoonu taalibe la ku fonkoon taalibe Serigne Touba la tamit ku dégg ay waxam danga xam ne sëñ Baara ku bàyyi woon taalibe yi xel la ndax daan na wax ne loo fi gis dongo yee bu toon ñoom dara du am mbirum intervention ak bëgg a néewal doomu aadama ak bëgg a tiital nit ak bëgg a nit moom daawu ko seetaan lu ma sa xew yëkkati na téléphone am wala mu jël signature téléphone am loxoom wala ay sol ay dàllam ndax nee na sama ñett yi du ma ko xañ sama coup téléphone sama signature loxo ak samay dàll bu dee du ma xañ kenn rawatina taalibe Sëñ Tuubaa yi noonu la fi nekk woon liggéeyal fi Sëñ liggéeyal waajur mu tedd ba bu fekkee maamam ju tedd ja kon nag moom yéen a jëm amoon te bàyyi fi jàmbaar ju mat tamit lu Cheikh Mamadou Moustapha moom tamit ñu ngi koy ñaaral fa sëñ Baara tàmbali woon bàyyee ko fa bàyyee ko liggéeyam ñu ngi ñaan liggéey boobu seytaan bañ ci amul yoon mu àggale ko ba na ko waajur moo bëggee woon yàlla na yeex ba ba ni muy fekkee waajur mu tedd woon yàlla na yeex yàlla na fi nekkee ati ba ci kanam ndax dund du sax waaye nag na fi nekk ba ci kanam gunge njaboot gi rawatina njaboot Cheikh Mamadou Lamine ak góor gi ak jigéen gi ñu ngi sant yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw fii rawatina seen kilifa gu mag sëñ Mbackiou ñu ngi koy ñaanal ubbite gi ñu jub muy vingt 27 septembre bis bi nga xam ne sëñ Touba amati ndam ci kaw lislaam ñu ngi koy ñaaral moom tamit ibbi ga ñu àgg ci ak jàmm te fekk fa jàmm te xam nañ ne xéewal li rek bu fay wàcc te lañ ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu بسم الله يكفيني أدار يا الله سعي بقاء بفيك يا الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki jullit yi ñuy seetaan ak bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo te siyaare leen ci weeru tàdd yi te balu ak di leen baal ak dikk di wax ay kàddu yu néew yu wér yu dëggu ci sunu sëriñ sunu xarit sunu wëlëre sunu mbokk alxaaji Mouhamadou Lamine Mbacké Fadil nekkoon xalifatul am li taifatul muridiya alxaaji Mouhamadou Lamine dafa nekk nit koo xam ne dañu naan mooy doomi sëriñ fallu waaye daf koo doon maddiyan wa yan ndax li mu ko doone yan mooy la jikko yi sëriñ fallu amoon daf caa jël lu baree bari xëy na bu jëlul lépp kenn ëppale ko ci jikko yi sëriñ fallu yi te jikko yooyu bokk na ci bëgg sëriñ fallu ni sëriñ fallu bëggee woon sëriñ Touba. Sëriñ Tuubaa bëgg ak yonent sallallahu alayhi wasallam Alaaji Baara noonu la demee woon ci Sëriñ Fallu ba tax li nga xam ne Sëriñ Sëriñ Seexul Xadiim am na ko ci Muhammadu sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg ko Sëriñ Fallu am ko ci Sëriñ Tuubaa ngir bëgg ko bëgg gëm ko ko gëm Alaaji Baara it am na lu mel noonu ci Sëriñ Fallu ngir bëgg ko bëgg ak gëm gu ko gëm te loolu képp ko xam Alaaji Baara euh, xam nga loolu muy lu wér ci moom euh, loolu tax na Sëriñ Fallu bi mu jógee yàlla xeer ko ci euh, yitte Serigne Touba lépp mooy yitteem bëgg-bëgg Serigne Touba mooy bëgg-bëggam bokk si bokk bëgg-bëgg Serigne Touba nag moo doonoon jumaa ji nga xam ne daf koo digle te dogu ci digle ga digge ci lam ci digge fa lu taxaw ji na mu ci taxawee ginnaaw magam ji sell ja Cheikh Mahmoudou Moustapha ba àggale ko fi mu ko àggale ba ñu indi gëre ko ci 63 loolee Alhaji Bara ànd ko ak moom lépp di ci kanamam. mu ànd ko ak moom ah loola nag bëgg mu bëggoon suñ suñ fallu nag tax na suñ fallu doon loolu ci mu doon loolu suñ fallu mooy bëgg taxaw jàkk jooju loolaa waral jumaa jii fi Dakar te yi ñu koy war a intégré Alaaji Bara am na ci rôle bu am solo boo xam ne sóyee na ko ci te rôle bi ci jëkk mooy ki nga xam ne moo njëkk teg première peeru jumaa jooju le kon Sëriñ Falloo tegoon jumaa yi première peeru jumaa ju njëkk ji te kanam si Mourou Moustapha moo ko àggale waaye tey El Hadj Baye moo teg premier père jumaay Serigne Touba ji nekk Ndakaaru donte na àggale ko it njabootam àggale ko waaye nag ci yéenam yàlla dogal na àgg lépp àgg na kon dañuy xam le ne El Hadj Baara loolee nga xam ne mooy jumaa ja bu fekkoon ne dañu ne euh, lu ñuy njëkkante la kenn jëkk ko ci ndax moom xalaat bi ci moom lu jóge première père bi ci moom lu jóge lu ñu tege tege ci mbir nag la ko fondation tàmbali ko su àggee dañuy xam ne kon ka ko tàmbali fondation woon kenn ëppale ko ci kenn jiitu ko ci kon alaji bara taxaw na ca jumaa ja taxaw yoon waxam ne wii def ca alalam loo xam ne lii ba ca kenn defagut kenn jiitu ko ci def ci alalam taxaw ca jóge fii ba ndakaar dem ana président de la république Abdoulaye Wade teg première pierre ba ñaan ca la mu sa ñaan la mu ñaanoon yàlla nangu na ko kon mu mel ni daal alaaji moom lu ñu ci mën a wax rek mooy jumaa joojee ca daal kenn ëppalewu ko ci ndax dewe ne moo ko jiite ndax moo ci jiitu jumaa ku teg premier pierre ba kenn jiituwu la ci kon yéene moo doon lii yàlla àggale na yéeneem Alaaji Mbàkke Fay moom nga xam ne moo fa nekk tey jii euh, ba jiite liggéey ba si bi teg ko ci loxoom moom moom moo ko fa tegoon taxawu ko jàppale ko ba màgg fa am fa li mu am man fa li mu fa man ba yàlla dogal lii tey yi kon jumaa ji tey yi bu àggee te yéene Alaaji Baara moo àgg projet projet Alaaji Baara moo àgg bëgg-bëggu Alaaji Baara moo àgg kon lu ci waay am kenn dugg ko ëpp la ci loolee ñaan ci Sëriñ Tuuba yàlla bu ko yàlla kenn jiitu ci yiw boo xam ne yàlla diggée na ko ci ko tabax jàkk da waxoon ne képp koo xam ne kii tabax nga jàkk tabax nga tool tàggum picc ci jàkk yàlla dana la ko fay ay njënd ci àjjana kon nag jamaa jooju nga xam ne moom la tamit premier père ba amoon na yéene mu àgg def na ca it ba mu agsi fi mu agsi tey ji kon yàlla na ko yàlla bindal tuyaabu ju toll noonu fay ko ko ci daraja Sëriñ Tuuba kon Alaaji Baara day mel ni ak wetam moom côté yëpp fi la ak euh, ay mayam jëmoon côté yëpp ak baaxam fi la jëmoon nit la woon koo xam ne kii kuy tabe la woon nit la woon koo xam ne kii ku am kóllëre euh, la woon nit la woon ku am yitte la woon nit la woon ku am yëg la woon nit ku am yërmande la woon nangut kenn ku néew doole kenn ci kanamam waaw ak comment doon rek boo néewee doole bu dikkee mu taxaw la te yow yaakaar naa ñi fi ne ci dëkk bi réew xam nañ ko ba ci ki fi nekk te ji xam na loolu ci moom ndax am na jamono yoo xam ne yi dañ ko bëgg néewal doole taxaw na ko taxaw yoo xam ne yi defe naa loolu kenn du ko fàtte kon Alaaji Baara nit la koo xam ne kii nitu jàmm la nitu gi yiw la nit la koo xam ne kii ku bari aw yiw la ku bari maslaa la ku baax ab xol la nit ku mucc la ci ayib nit loon ko xam ne kii daal ñu ngi ñaan daraja Sëriñ Tuubaa yàlla dolli ko aw yiw dolli ko tiyaaba te sàmm njabootam fi bàyyi gannaawam gépp te ki jiitu ji njaboot googu nag mooy xalifaam Alaaji Mouhamadou Moustapha jikkoy Alaaji Bara yow itam jël na ci lu bari wax dëgg yàlla ku baax la ku am yitte la ku tabe la ku man a dox ak bokk la ku am kóllëre la ku laaj fonk ku nekk fonk na la kon loolu Alaaji Bara defoon ku fonk si bal fonk fonk la xaak sam itam ku Alaaji Bara fonkoon fonk na la kon noonu koy ñaanal ñaanal njabootam gépp ñu ko ci gën a mag ba ci ko ci a ndawe ñoom sëñ Galas Kaltoum sëñ Seex Ndindi ak ñëpp yàlla defal leen mucc ak xéwal sàmm leen doon leen xéwal zaahir ak baatin ba lépp laaj baara yéene woon ñu la yéene ji seen yéene bopp dara ji sëñ Tuubaa waaye dafa nekkoon ko doylu ko doylu la woon koo xam ne kii bi alaji baara yëkkatee loolu hectare yooyu joxe ko ci turu Serigne Touba te moom mu nekk Serigne Touba sañoon na caa dagg ay kër sañoon na caa dagg jox ay bokkam wala ay doomam wala kër boppam waaye dafa bàyyi lépp na ko alaji baara yi bëggee woon na ko suñu Abdoulaye Wade bëggee woon mu am yéene Serigne Touba moom ndax loolu ku ne xam na ne amoon na sañ-sañ ñu def fi leneen te xëy bu doon ñoom it ay jëf leneen waaye moom nag yàlla dimbali na ko ba amul soxla ci àdduna kon daay loolu laa woon koo xam ne kii lu waaye am yéene na la ko te it euh, bëggi wutoon daal bay bay bay bay ngaf ngaf ci daal mbiram tabaarakallaahu yàlla na ko yàlla yàlla ko jat jiitu rek bismillaahi fii niin ak daala yàllaawum sabi baqaa di fiika yàlla. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alaaji Mamadou Moustapha maa ngi lay nuyu tudd la sant la gërëm te da xamal ne fàtte woo dara ci wëllu rek waaye nag sa waajur ma ko niru sa waajur dafa fonkoon wëllu lool. xam naa ci moom loo xam ne bëriwul ñu ko ci xam ndax jooju ñuy wax yàlla dogal na moom ci boppam moo teg eh, xeer mu njëkk bi tey lépp ci ak jàppandalam la ko suñu borom jàppandale ak suñu borom eh, xarañ gum xarañ goo xam ne bëgg na lépp suñu fàllu jox takk Sëriñ Tuubaa loolu loolu moo loolu am ci moom rajo nag dafa doon nit koo xam ne baatinam da ko da ko da ko nëbb ci saayir si ba neexut a xam ndax man ànd nañ loolu ñeent fukki at yoo xam ne mosumaa ci mu tiim sa oto bi foo toll sotti gaa ngi ci day jàpp na maa waxtu timis di bëgg a jot place de l'indépendance loolu ñaar képp muy dawal daf ñuy jaare yi ci waxtu di ma kata wax loo xam te ne ma ne ah, mu ne ma weer na dinaa nekk xalifu Sëñ Tuubaa te boobu suñ ma doon fi waxantuma laa ñu ci def waaye nag boo ko waxee ma ne mu wax nu ànd ñoo ci barab suñu Fallu mu dugg ci barab bi déedéet day kii ci wet gi féet sow rek lay taxaw waxtu bu jógee këram bu ndee jëm allié bu tolloo gis gis ñu ne dàllam ci oto bi suñu mbaxanaam teg ci kawam ndax war maa sëñ yàlla it may na ko ci taar boo xam ne tableau bi doon suñu tuwaay yi nekk tableau bi ko suñu borom def turam nga nag fal nga ci bit ak jëmmam kenn mënu ko caa dindi Tuubaa ci waxum def na fi waxuma jumaa ji waaye Tuubaa gi rek defal na fi Sëñ Tuubaa loo xam ne nit ki mën na fee nekk nagam at du ko def waaye nag lépp ak jàppandalam rek Alaaji moom deme na noo xam nag nee ko nee ko maa wax ci moom waaye daal noo ngi koy ñaanal jumaa ji ni ko tàmbalee lu ci tuyaabo lépp ba at mi tukki mu am ci wàllam ak njabootam. bismillahi fiini adala yàllaaw sabi baqa abi di fiika yàllaaw waaw bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin Seydina wa Mawlana Muhammadin bi ahlihi wa sahbihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh noo ngi nuyu bokk yi nuy seetaan di nuy déglu di nuyu bokk taalibe yëpp di nuyu bokk jullit yëpp di nuyu sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha di nuyu njabootu Sëriñ Tuubaa njabootu Cheikh Mouhamadoul Fadel njabootu Mbusoobe Alxaaji Mbàkke Buso ak mboolem bokk yi di leen ndokkeel ci bis bii nga xam ne moom la ñuy jublu si muy bis bi nga xam ne ci la ñu fas yéene inauguré jumaay Ndakaaru ji mu incha allah vingt-sept ñaar fukki ak juróom-ñaar ci weeru septembre di loo xam ne lii nag koo ci ku ci wax te jëm ci Cheikh Mouhamadou Lamine Cheikh Mouhamadou Lamine moom koy wax ci moom da tàmbalee ci bëgg Sëñ Fàllu di jeexale ko ci bëgg Sëñ Fàllu lépp loo xam ne lii xam nañ ne bëgg Sëñ Fàllu man na caa def dooleem ba mu jeex tàkk def ci waxtoom ba mu jeex tàkk def ci man manam ba mu jeex tàkk waaye li nga xam ne moom ci liñ si tënk li ñuy wax rek ndax dootul yàgg mu jëm ci mbirum inigration bi ñu bëgg a def ci jumaay Ndakaaru ji ñu wax ne jamono yi nga xam ne mu ngi dem di immigré ji eh, di di man mii bokk naa ci ñi nga xam ne woon na ma ne ma da nga ciy te it yàgg naa ne ko xool image yi ci waxtu woowa da nga ci seen moo yëkkati waajaay yëpp jox ma ne ma du am ngoorta ne ko waaw ma ne ma nañ nañ jiit la noo bokk noo bokk ànd ba àgg ak sëñ Matar Bousso yow mii defe naa ca nga ak bokk yu bare bare bare waaye damay siyaare nag man mii ca laa àndoon dañ jaaree Colobane ba waxtaan fa ba war faa jógee dem ci tegum xeer wa nu àndandoo ñun ñëpp dem bañ demee it mu teg xeer wa ca na mu ko war tege ci pas-pas ak bëgg sëñ Fallou bëgg sëñ Touba ak si yeneen liggéeyal sëñ Touba maamam nga xam ne moom lay tàmbali ba ci moom la bàyyi ko muy tegum xeer wi àndoon na ko bokkam yëpp it defe naa ne bis boobu mooy bañ julli woon timis ci pale ba am déet bokkuñu bokkut ak boobu waaw kon euh, moom daal ku ñu kañ la ku ñu sant la ku ñu gërëm la ku bëgg yoonu murid wala ku ku liggéeyal Serigne Touba la ku liggéeyal Serigne Fallou la euh, ba tax na am na ndam ndax àdduna moom dañ fi romb rek di jàll waaye naal wu nii mu tàmbali ko ci loxol boppam yéene ci xolam mu àgg ci loxoom mel na ni àgg na ci loxoom ndax la ca war ca waajaay waag tàmbali baag diggam ak kilifa yom ko seqal yépp bu mu ko defee ba mu mat moo tegal boppam xeer bi ànd ko bokkam yépp nag kenn manqué kenn manqué ñépp teewoon tant ba keroog yéen fa defoon bari na waaye yépp daa del ñu di ko kañ di ko ndokkeel di ko ñaanal nag yéenam jooju mu yéenoon ba mu tax xeer wa sa borom àggale na ko Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke jaar na fi def ci jëf ju rëy ji mu ci def ba mu ci noppee Cheikh Mamadul Muntaxa ñëw moom mi nga xam ne moom la àndaloon ba ñuy tegi xeer wa mu àggee ci loxoom mu mel na ni lam ci yéene woon suñ borom defal na ko ko kon nag nañ ci dugg ak bisimilah rahmaani rahim àggale ko alhamdulilah rabbil te yéegal ko ci daraje jumaay Tuubaa ji lépp lu fa waaye jaamu yàlla wala nga julli ko fa wala nga jàng ko fa alxuraan wala nga jàng ko fa xasida wala nga ñaan ko fa ñaan yoo fa mën di ñaan yal nañ ko yéegal ci jumaay Tuubaa ji te ragal naa ne loolu mooy lii am ndax tàmbali bi ba ci mujj gi lépp sëñ Tuubaa la kon nag fa tabaarakallaahu ñoo ngi ndokkil ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dañu àgg ci ak jàmm ñu bokk fa daje ah taxaw immigration bi ba mel ni mu war mel ñu tàmbali liggéey bi nag fas yéene mu jëm nag abadal abidin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi fini adala yàllaw safi baqa